wa namimatu ak rambaaj wal kibru ak rëy wal ujbu ak xaaw wal riyaa ak ngistal wal sumaatu ak déggatu wal xasadu ak iñaan wal buxdu ak mbañeel wa ru'yatul fadli ak gis bët ngëneel al xayri si keneen wal hamzu ak piis wal lamzu ak regeju wal abasu ak font wa suxriyatu ak reetaan wa zina ak njaalo wa nazaru ak xool ilal ajnabiyati jëm ci jàmbur bu jigéen wa talazuz ak bànneexu bi kalaamiha si ay waxam kon xaraam na ci mukallaf bi fen fen dafa xaraam baaxul la mooy fen nag fen mooy wax lu dul dëgg te ko loolu mooy fen wax lu dul dëgg te tay ko yàgg na xam ne nit kaa ngi fen te moom nit kaa ngi wax lu dul dëgg te moom moo ko gën a tay moo gën a xam ne lii du dëgg leer na ko kon loolu mooy fen mais bu fekkee moom daa wax lu dëgg mais tayul ko boobaa fen na waaye fen ko nekkul fen ko xaraam du si am bàkkaar daal kon wax lu dul dëgg te ko fekkee nit ki dagaawa doo di am bàkkaar mais bu fekkee daa wax lu dul dëgg mais tayul ko boobaa fen la waaye du am bàkkaar tayul ko wal xiibatu ak jëw jëw tamit dafa xaraam jëw mooy wax ci gannaaw nit ki lu ko neexul diw gis na kii di sàcc te moom sàccam gi daf koy nëbbu nga ngay dem di ko wax nit ñi loolu neexul ko kon loolu mooy loolu mooy jëw wax ci gannaaw nit ki lu ko neexul dafa xaraam jëw nag juróom benn yi nga xamante ni borom xam-xam ne tànn nañ ko ne jëw yooyu dagan na moom lay woykat bi wax ne tazallam wastaxis wastafti wa hazir wa arif bidaatan fisqal mujahiri tazallam jàmmat ak tooñ yow dañ laa nga dem di boole pour ñu dimbale la loolu du jëw dara nekkul si dele sax su ko yëgoon wastaxis xettalikul kii moo ëpp doole te mu ngi lay mbugal nga bëgg a xettaliku dem si keneen ki nga ëpp na ko doole nga nga wax ko dara nekku si wastafti laajteel yaa ngi gis yaa ngi bëgg a dugg ci diw te xamoo moom nii jikkoom xamoo nu men nga bëgg a laajte ba xam nu men dooru dugg ci moom dara nekkul si waxasir moytandikuloo yaa ngi gis sa benn xarit mu ngi bëgg a diggu dugg si diw te diw de ah, ah, ku bon la te su duggee rek xaritam boobu dana yàqu mu ñëw di ko moytandikuloo na ko kii de baaxul lii lii nii mooy jikkoom nii la men pour moytandikuloo ko mu bañ saa dugg loolu dara nekku si delloo si ko yow sa du ko neex waarif ñoom nag juróom-benn lañ génne waaye daanaka mën nañ kaa def juróom-ñaar ndax waa arif googu mën nañ kaa firee boppam waa arif ak xamle xamle gi nag mën ngaa xamle si wàllum jaam yàlla mën ngaa xamle si lu dul wàllum jaam mën ngaa xamle si lu dul yàlla si lu ni ki am na ku dugg kër jàmboor di fa jël lu moomul nga nga nga gis ko te yow soo mën nga xaa boole balaa moo génn foofu ñi waa waa ji jël moom nga dem boole ko nga dem xamle ko ne ah, am na ku dugg ci kër gi mu ngi sàcc loolu dara nekkul si wala sax si jaamu yàlla am ku nekk si dëkk bi di waar nit ñi si nga xamante di waar moom seytaane lu mu waar ni xamul si dara day wax rek day wax rek waaye lu mu lu mu wax nit ñi nii moo amul sax lu ko si wóor day taxale rek pour nit ñi ah, nit ñi kawel ko daal def ko muy kilifa yooyu lay def mu dem di ko xamal nit ñi dara nekkul si bidaatan man nga firi firi bopam nga xamle kii def bidaa ki nga xamante ne day def bidaa nga xamle ko nag kii de bidaa rek lay def li mu def nii yëpp ay bidaa la loolu tamit dara nekkul si fisqal mujahiri mooy kàccoor bi feeñal ay mbiram kàccoor bi nga xamante ne day biral lu muy def nëbbu lu muy def kooku noonu tamit soo ko feeñalee dala neexul ko sax du jëw moom mu ngi naan sàngara te nëbbul ko mu ngi sàcc te nëbbul nëbbul ko ñëpp di njaaloo te nëbbul ko boobaa soo ko waxee ni du jëw ndaxte moom day feeñal ay mbiram kon noonu mooy jëw jëw mooy wax ci gannaaw nekk neexul borom xam-xam yi sepp nañ ci juróom-benn yoo xamante ni dagan na wan na rambaaj rambaaj nag mooy jaxase nit ak nit yaa ngi fekkee yaa ngi fekk eh, nit yaa ngi fekk ñaari nit yu neexoo ay xarit yi nga xamante ni yàgg nañ nga ñëw bëgg tey nga ñëw bëgg leen jaxase loolu mooy rambaaj nga ñëw dem ci kee na ko kii de bëggul la yow chaque jour yow pexel nga demaat ci kee kii de bëggul la yow chaque nga yàq seen diggante bañ yàqoo loolu mooy rambaaj yonent bi nee na laa yadxulul jannata an rambaajkat du dugg àjjana ndax jëf googu dafa ñaaw wal kibru ak rëy rëy mooy bañ dëgg xeeb nit yow daal fi la waxee dëgg rek nga nara say si kaw nit doo doo ko nangu mukk te nit ku rek yaakaar ne moo ko gën loolu mooy rëy bañ dëgg yow koo gis rek yaakaar ne yaa gën yoon bi nee na laa yadxulul jannata fi qalbi misqaala zarratin min kibri du dugg àjjana ki nga xamante ni xolam am na lu toll ni sànqalañ ci rëy kon rëy ku nekk naka génnee ci xolam bam jeex tàkk bu mu ci bàyyi dara délai sax yow da nga tuuti tuuti nga rëy lu toll ni sànq lañ <coughs> soo ko soo sax yonent bi nee na doo dugg àjjana wala bu ak xaaw xaaw nag mooy yéem jëf dafa xaraam nit ki mu ngi julli guddi gi yëpp yow naan ah man tey lu ma julli bëri na defal yàlla tey bëri na fekk moom defalul yàlla dara dara dara su xalaatee kàttan bu mu taxawoon di julli yàlla ko xam ne yàlla su ko bàyyoon du man dara ndox mu jàppoo pour julli yàlla ko xam ne bu mu lal pour julli ak suuf su mu taxaw loolu yëpp yàlla ko xam ne moom deful si dara suñu xoolee deful si dara kon xaaw mooy sa jëf lu nit lu mu na bëri te fekk moom naka da deful ci dara loolu dafa xaraam war riyaaw ak ngistal sumaatu ak déggatu gistal dafa xaraam ngistal mooy jaamu yàlla bapare pare bëgg mu bëgg nit ki mu bëgg nit ñi gis ko di ngistal pour nit ñi gis ko ngistal nag ci jaamu yàlla lay nekk waaye du nekk ci lu dul jaamu yàlla fekkee nit ki dafa am otoom mi génn di ko wane pour ngistal pour nit ñi gis ko loolu moom loolu di ngistal ndax nekkul ci jaamu yàlla mais bu fekkee moom moom dafa ah, julli guddi gi yëpp yeew di bëgg nit ñi ah, xam ne julli na guddi gi yëpp naan ah, ñu naan lu tax mu naan ay dem ci guddi de daanaka nalawu ma dara xaaj guddi gi dama kaa pour nit ñi ne kii moom naka rek julli rek lay def guddi gi loolu ngistal la sonn na ci guddi gi yëpp du ci am benn tiyaaba yàq na jëfam yëpp wasumaatu ak déggatu déggatu mooy nit ki di jaamu yàlla bëgg nit ñi dégg ko comme moom su fi nit ñi nekkee su fi nit ñi nekkul dana jàng alquran mais nànk la koy jàng waaye tey daal nit ñëw mi jàng si kaw pour na nit ñi pour nit ñi wax ne kii de neex na baat kii na yooyu moo ko mi mi wax si kaw kaw di ne di arabal baat bi loolu mooy déggatu dafa xaraam sooy def defal ta yàlla tax rek wal xasadu ak iñaan iñaan dafa xaraam iñaan nag ñetti xaaj la mooy gis mooy nit ki am dara nga bëgg mu ñàkk ko yow nga ñàkk ko loolu loolu boobu moo gën a yées baaxul loolu dafa xaraam ak nit ki am dara nga bëgg nga mu ñàkk ko yow kase nga am ko boobu tamit bon ak nit ki am dara nga bëgg mu am ko nga am ko boobu moom dagan na baax na dara nekku si boobu sax moo boobu moo gën kon iñaan ñetti xaaja ni ki am dara nga bëgg mu ñàkk nga ñàkk ko ni am dara nga bëgg mu ñàkk ko nga am ko ni am dara nga bëgg nga am ko mu am ko nga am ko boobu dara nekkul si wal buxdu ak mbañeel yow daal da nga gis nit ki moom dafa gis nit rek bañ ko moom daal moom moom moo mënta ah, xolam bi la mënta ah, la si mënta dugal kii moom daal daf kaa bañ rek te yàlla kooku loolu waru kenn waru mu kalaf nekk war di def loolu soo mu gisee sa morom ci li da kaa war moo gën da kay bañ waru yetul fàddali ak gis bëtu nganeel alal si keneen lii comme rëy rek bii comme rëy mooy gis bët gënal si keneen yora daa koo gis rek yaakaar na yaa ko si xeetu rëy la bokk bañ dëgg xeeb kum gis rek yaakaar ne moo ko gën loolu dafa xaraam delee yéeféer bi la sax waroo yaakaar ne yaa ko gën ndaxte xamoo fan may mujje mujj gu rafet rek am njëriñ moom mën naa mujjee nekk julit yow nga mujjee nekk yéeféer xamoo nu muy demee kon ku nekk rek koo gis rek jàppal ne sax yow moom moola gën dele mala bi sax xaj bi sax jàppal ne moo gën nag xamoo moom yow sa mujj fal moom ko mujjam fal wal hamzu ak piis piis nag suñ ko waxee mooy jëw si làmmiñ mais du nekk wax comme man ak diwloon ñi gis demba mu toog fee mu toog fee ñu gis ah, gis nañ ci dara dara si moom daal ñi koy ñi may piis keneen gi pour mu xool demba loolu jëw la te dem sa suul su gisee mën naa nekk di reetaan yaakaar ne waxu leen ak moom te fekk moom nga leen waxat loolu jëw la ndax su ko yëgoon mën naa am du ko neex wala lamzu ak reegaju reegaju mooy jëw si bët jëw si bët tamit dafa xaraam wala abasu ak font foo dafa foo yonent bi ñetti fa yi kese la génnee ñetti foo yi kese ñoo dagan mooy foog sa jabar ak foo si fitt ak foo si ak foo foog sa si ak foo ak foo fas kon ñetti foo yooyu la yonent bi wax na moo dagan ndax de soo foo si fas suñ demee xare ja danga mën mën a tax nga mën a dawal fas yi loolu moo taxoon mu dagan ak timit foo si fitt mu jàngale fitt pour suñ demee si xare foog sa jabar loolu tamit dara nekkul si waaye yonent bi nee na yu bul fooyoo nag neen la neen nag am na ñu ne dafa xaraam am na ñu ne dañ kaa sib mais am na foo yoo xamante ni moom xaraamu sibuñ waaye dafa abul benn njëriñ comme ay tëb ak tëbaka dal di tëbaka dal loolu foo waaye amul benn njëriñ te xaraamu sibuñ ko dafa ay musique di déglu ay musique yooyu dafa xaraam mu foo yokk dañ kaa sib comme di fecc yooyu dañ kaa sib wa suxriyatu ak reetaan reetaan tamit dafa xaraam reetaan nag mën naa nekk si jëf mën naa nekk si reetaan ko nii ni ngi nit gi gis benn mag bu daanu mu gis ko di di reetaan loolu reetaan la wala ci jëf mu gis niki moom niki moom dafa ñàkk xaalis tey ndaxte amul jox seen amul lum jox waa këram mu dem mu si diw ki xamoon di yaakaar na mu jàppale ko mu koy leb mu ne dama bëggoon tey nga jox ma nga alma foofu dix mille bu ma joxee dépasse dix mille bu ma joxee dépasse su ma paree su ma amee fay la moom mu ne ko moom moom mooy kum dem noonu mu ne ko ah man de sama waa kër ñoo ma fonto ñoo may bëgg a fonto ma ma bëggoon leen a jëndal tey xar pour ñu def mis wi ñoom nee nañ naa nañ jënd nañ togg fonde rek loolu après na ko demal amuma loo loo may laaj loolu reetaan la loolu reetaan la mu ngi abul abu nga ko demal awma euh, te fekk am nga ko ne demal nga ne ko demal awma lu lay laaj loolu reetaan la si jëf wa zina ak njaalo njaalo dafa xaraam njaalo nag mooy nit ki see kudut jabaram loolu dafa xaraam njaalo kon nag foo ko gis kanam gi dafay ñaaw te dafa dafay dundam bi du gudd dafay gàtt dafay gàtt fan te encore dafay ñàkk jaalo ko foo ko fekk melokaan yi la ñett yooyu nag mooy ñetti si àddina mooy ñaaw kanam ak gàtt gàtt dund dund bu gàtt ak ñàkk mais ñetti am na ñett yi nga xamante ni ñooy nekk si àllaaxara mooy meram yàlla yàlla dana mere yàlla dana ko régler régler bu métti te suñ pare danañ ko mbugal mbugal. kon njaalokat am na juróom-benn ay yi nga xamante ne moom lay nekk ñetti ci àddina la yeneen ñetti ci àllaaxar mu ne wan nazaru ak xool ilal aljinabiyati jëm ci jàmbur bu jigéen xool jàmbur bu jigéen di bànneexu ci moom loolu dafa xaraam. bu fekkee moom comme xool bu njëkk la da ngaa xool xool yooyu xam ne kenn du ko tey mu xool ko bu njëkk rek génn euh, euh, xoolaat fële xoolul ko loolu dara nekkul si na xool bu njëkk la mais bu fekkee moom da ngaa xool xool bu njëkk ñi koy wax mu ne muy xool ak ne xool bu njëkk la boobaa loolu moom dafay xaraam wa talazzuz ak bànneexu bi kalaamiya si waxam bànneexu si waxam tamit loolu dafa xaraam wa aklu ak lekk alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin si lu dul tey bakkan lekk alalu nit ñi si lu dul tey bakkan bakkanam loolu dafa xaraam nit ki moom mu ngi nag nit ki diga di lekk alalam te nit ki xamul si dara naka lu mu wax noonu yëpp daf koy nax su ko xamul du ko jox alal gi wala sax mu forcé ko jël ko mu forcé ko jël ko si moom jël jël alalam loolu loolu lekk alalu nit ki si lu dul tey bakkan loolu dafa xaraam waa akul wal akul ak lekk bi shafaati sa ramb ak lekk si ramb tamit dafa xaraam aw bi diine wala si diine lekk si ramb na mooy nit ki comme moom mën naa defaral nit ki bilaa bilaa mu si su la defaral leen rek ñu defaral moom moom moom mu koy mu muy laaj nit ki alal ne danga may jox alal ba danga may jox xaalis ba pare danga may jox temps ma dóor la koy defaral loolu xaalis boobu noonu dafa xaraam waru kaa lekk aw bi diin wala lekk si diine lekk si diina nag mooy mbubboo diina gi ñi lay jox alal ngay lekk loolu dafa xaraam ni ngi dem si nit ñi nga xamante ni dañuy jàppale lislaam mu dem fa di mu dem fa laaj leen xaalis wala mu laaj leen xaalis ne damaa bëgg a tabax jàkka daara ñu jox ko mu ñëw dugal ko si këram loolu noonu dafa xaraam xaalis boobu noonu dafa xaraam delloo sax dañ kaa jox mu tabax jàkk ba pare tamit xaalis bu des noonu daw la kaa war a wala mu def ko ci jumaa ji wa taaxiiru salaati ak yéex a julli an awqaatiha ba waxtoo génn dafa xaraam ci mukallaf mi yéex a julli ba waxtoo passé ndaxte waxtu ñaar la mooy waxtu muxtaar ak daruri te waxtu muxtaar bi kese lañ ko may mu muy julli mooy waxtu buñ tànn pour julli waxtu daruri bi pour waxtu ngànt la lor pour su amee fekkee amul nag benn ngànt mu bay muxtaar julli si daruri boo dafay am bàkkaar mu ne walaa yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf bi soxbatu fasiqin mu ànd ak kàccoor wala mu jaali la sa tuhu du caagan moom li xayri daruratin si lu benn lor mu ne daganul ci mukallaf bi mi ànd ak bu du toog warul mu toog ak moom si lu lor bu fekkee kàccoor bu fekkee nit su ànd ak moom dana jub boobaa dafay war mu ànd ak moom bu fekkee su ànd ak moom daf koy yàq rek boobaa jërul muy ànd ak moom ndax su ànd ak moom mën naa dem ba si kanam kàccoor bi wàllu ko wàllu ko a mu nekk si moom moo tax yonent bi ne almaru ala diini xalili falyanzur ahadukum ay di nit mu ngi si diina xaritam ku nekk na xool ak ku muy xaritam naka noonu tamit su bi dem nekk xaritam booba su yàggee rek day jël jikkoom moo tax soo àndalee ànd ak kàccoor bi te te soo àndalee moom day day du du changé boobaa jëru ngay ànd moom waaw bu fekkee soo ànd ak moom moom dana changé da ngay ànd ak moom kon moo tax kàccoor nag kenn wërut a toog toog moom kenn wërut a moom si lu dul lor lu mooy lor bu fekkee ni lor comme ngeen nga war a dem fenn moom war a dem fenn ñëw dugg si oto bi yi ñaar ngeen dugg si oto bi fekk ñaari place kese des te yow soo toogul oto bi dana yow da nga tardé wala wala wala balaa ngaa yegg foo jëm daal da nga tardé daal loolu boobaa lor la. mën nga toog ak moom waaye soo toog ak moom bul jàkkaarloo moom bul bul ak moom sax waaye bu fekkee yow soo toogee xaar beneen oto bàyyi ko mu dugg foofu beneen oto dana ñëw léegi nga dugg te doo te doo te ah, da nga yegg foo jëm bila problème doo doo si am benn lor bu waaw moom da ngay xaar beneen oto mu ne walaa yetlu bu mu sàkk moom mukallafi rida al maxluqina ngërëmal ñuñ bi nit ñi bi suxtil xaaliqi si merek aji bindi nee na ah, euh, walaayatul bu mu saaga ridaal maxluqi ne ngërëmal ñuñ bind ñi bi suxti xaaliqi si mer ak aji bind gi mu ne bi bu mu sàkku ngërëmal ñuñ bind ñi bay meral bay ku bind mooy bu mu sàkku ngërëmal mbindee fi bay merloo yàlla sooy fekkee da liggéeyal ni muy liggéeyal ki nga xamante ni ah, kilifa la wala muy liggéeyal sëriñam bu mi liggéey rek ba waxtu julli jot mu war a dem julli ji mu bëgg mu mu bëgg sëriñam kontaan ci moom mi gën di continuer di ju di di mi gën di continuer di liggéey bàyyi julli ji ba kontaan dana kontaan loo sëriñam mais dana merloo yàlla te bañ a kontaan loo sëriñam ñàkk merloo yàlla moo gën kon soo liggéey soo liggéey bul xool bul tax bul bëgg ñi fay la gërëm bu fexeel ba da bëgg yàlla fay la si nga su waxtu julli jotee ga dagg ko teg ko julli ñëwaat mottali moo gën mu ne qaala wana laa yàlla subhaanahu tudd na ma wallaahu yàlla wa rasuluhu ak a xaqu ñoo gën a yeeyoo an yurdu ñu gërëm loo leen ñu kaa muminin di way gëm ne yàlla nee yàlla nee moom ak yonentam bi ñoo gën a yeeyoo si ñu gërëm loo leen fekkee ay julli lañ ay ruduux gi nag benn damir kese la ko def mooy damir huwa waaye dañu kon suñu leen wax dañu waroon wax ay ruduuhuma mais lu tax ñu ay ruduuhu mooy ne mooy ne yàlla lu ko lu gërëm loo yàlla rek gërëm loo na yonent bi lu gërëm loo yonent bi tamit gërëm loo yàlla rek moo tax ñu def ko benn damir ni mu ne wax na ala yàlla nekk moom asalaamu jàmm laa taa'ata dee topp li maxluqin njël kuñ bind fii masiyatil xaaliqi si mooy aji bind gi nee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bul topp kuñ bind ki bay mooy ki ku bind mooy bul topp mbindeef bi bay mooy yàlla comme feere bul bul nekk di ko liggéeyloo wala nga koy topp si si lu bon mu lay wax di la wax lu bon nga ah, dugal la bon nga topp Euh, di mooy yàlla déedéet bul def loolu su la sooy ànd ak moom su la digalee lu baax la defal mais su la digalee lu bon rek bàyyi ko bul ko def ndax soo ko defee da mooy yàlla mu ne walaa yàlla du dagan lawu ñeel mukallaf bi an ay mu def an yefan mu def fenlan benn jëf xataa yaalama ba ta mu xam xukumallaahi attig yàlla fii si moom mukallaf bi warta def benn jëf benn jëf waru def lu mooy xam na li ci yàlla wax ni ku nekk sooy commerce balaa nga dugg si commerce war nga xam lu si yàlla wax ba pare nga dem jàng ni ku nekk tamit si si takk soxna war naa xam lu si yàlla wax ba pare waaye moo gën gër rek moo gën nga gër-gër rek dugg si di dekk ribaara xamoo si daal il faut nga dangaa war a dem xool lu si yàlla àtte lu si sa borom wax ba pare nga doolu dugg si mbir moom bu fekkee nag moom mënta dem jàng wees alu mu laaj al ulama ay borom xam wa di mu roy mu laaj borom xam-xam bu fekkee moom mënta jàng wala su jàngalee faate léegi na laaj borom xam-xam borom xam-xam wax ko borom xam-xam wax ko mu dem def waaye bu fekkee tamit moom su ko borom xam-xam waxee tamit moom du mën a dégg du mën a comprendre boobaa wa yaqtadi na roy bil mutabini suñuy topp li sunnati muhammad ñel sunnaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam salla yàlla dolli ko allah yàlla alisi moom wa sallam te dolli ko bu fekkee moom su laajee borom xam-xam yi du dégg lii borom xam-xam yi xamu ko du ko comprendre wala sax da koy da koy wax léegi mu génnaan mënu kaa jàpp boobaa na dem roy si ñi nga xamante ni ñoo topp sunnaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñu def rek mu roy leen lu ñu def si baax si lu baax rek mu roy leen mu roy leen si ñan ñoo ñi nga xamante ni ñoo topp sunnaay Muhammad mu ne allazina mooy allazina mooy gaa yi nga xamante ni yadulluuna dañuy tettale ala taatillaahi si topplu yàlla wa yahziruuna ñuy moytandikuloo min ittibaa sheytaani si topp seytaane mu ne gaa yi nga xamante ni si ñooy ñooy topp sunna yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy gaa yi nga xamante ni dañuy teetale to nu ñu toppee yàlla di la jàngal nu ñu toppee yàlla di la jàngal ta borom di la moytandikuloo ak seytaane nu mu ne walaa yarda bu mu gërëm li naf si ñeel boppam maa li nga xamante ne radi yowu gërëm na ko al muflisuuna ñuñ falas ñi bu mu gërëmal bu gërëmal boppam li nga xamante ni ñuñ falas ñi gërëmoon nañ ko ñun ñoo ñuñ falas ñi ñuñ falas ñi nag mooy allazina yi nga xamante ni daat sànko na ahma amaaruhum seen dund fii xayri taatillahi si lu dul topp yàlla taala bu kawa bi fa yaa xasratahum wanaa seen perte wayaa tuula bukaa in wonaa sana yàgg jo yow xiyaamati ki rek bis penc nee na nee na gaa yi nga xamante ni ñooñuñ falas ni ñooñuñ falas ni mooy gaa yi nga xamante ni seen dund sànku na si lu dul topp yàlla mooy daal ñoom daal di dañuy jaam ñuñ nga xamante ni dañuy jaamu di julli di wóor di di def di xaj Makka waaye ñoom lu ñu def noonu lu ñuy jaamu yàlla yooyu noonu yëpp dañ koy def dañuy jaamu yàlla lépp lépp lu war seen bor diggante seen borom la danañ ko def mais lépp lu war seen si seen diggante ak diggante jaami duñ ko def comme dañuy jaamu yàlla waaye dañuy tooñ nit ñi danañ saaga kii danañ dóor kii danañ tooñ kii ñoom daal loolu loolu mooy loolu rek la ñuy def ñooñ ñoo ñu ñu falas ñi ñooñ nag suñ demee yowal xiyaamati yàlla day jël seen jëfi baax yi ndax jaamu nañ yàlla ba sonn loolu noonu seen jëfi baax yooyu la yàlla jël jël ñi nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoom nekkoon nañ di leen di tooñ ñu jël ku nekk lu ñu la tooñoo la lu mu toll yàlla jël si jëfe ba mu baax fay la mu def noonu di jël si jëfe mi baax yi di ko fay di ko fayee su demee ba jëfi baax yi jeex nag ba nga xamante ni mënta fayete dara yàlla jël ah mooy ñum tooñoon seen jëfi bon yi yu des mu ñu jël ko sànni leen ko sànni sànni ko jël ko dugal ko safara ñooñ falas ñi fa yaa xasratu woonaa seen ak perte ñooñ darañ perte wa tuula bu kaayum woonaa seen yàgg jooy dinañ jooy yowmal qiyaamati kerek bis penci nasalu ñu ngi ñaan allahu yàlla subhaanahu wa taala wa sallam ay wafiqna mu dëppale ñu ittibaay sunnati nabiyina ngir topp suñu sunnaay yërënt wa ku ñuy ramb sayyidina ku suñu sang muhammad muhammad sallallahu yàlla na do salla yàlla na dool ko allahu yàlla alayhi si moom wa sallam te dool ko musal ñu ngi ñaan yàlla mu dëppale ñu jub boo ñaa dëppale ñu jub ngir ñu mën a dëppale ñu jub bañ topp sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni moo ñuy ramb naate kere yowmal qiyaamati suñ taxawee si taxawaay bu métti bi yàlla bu ñu si yàlla boole sax taxawaay bu métti boobu noonu nit ñi danañ dem si yonent yi yonent yu nekk pour mu pour mu ah, ah, wax ya ñaan yàlla mu dindi leen ci taxawaay boobu waaye fu ñu dem rek ñu ngàntalu leen waaye bañ ñëwee ba si yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nara sujjóot nara sujjóot yàlla na ko fii di julleekaay ñaanal looy ñaan mu ñaan pour ñu rambu nit ñi pour ñu àtte leen yàlla yonent bi ñaan yàlla atte jaami lool noonu rambula mooy ramb boobu mooy ramb bu gën a mag ramb nag yonent bi rek moo ko jagoo ramb ñeenti xaaj la mooy ramb ramb boobu noonu ramb boobu mooy jaami si taxawaay bu métti bi si ñëwee ba yonent bi ramb leen ñaan yàlla yàlla atte leen ramb boobu noonu yonent bi rek moo ko jagoo moom kese moo ko moom ak ramb ak nekki dugal ko pour dugal ko àjjana boobu yonent bi mën na kaa def borom xam-xami ak ñu yàlla ak ñu am daraja yëpp pour ramb nit ki dugal ko àjjana yoo xam yàlla mu dugal ko àjjana ak nit ki nekk àjjana nga ramb ko comme comme baay ak doom baay ji nekk si kaw a kaw doom ji nekk si suuf mu wax yàlla ana sama ana sama doom mu ne ko sa doom yaa ko gën a kawe maqaama mu ne ko yégal ko sama kaw yéegal ko yégal ko sama maqaama yàlla dana yàlla yéegal ko ndaxte soppeem la tam day nangu ñaan yàlla yéegal ko loolu ramb la loolu ramb la ramb la waaye la si daraja ak ramb nit ki jëlee ko safara dugal ko àjjana loolu yonent bi mën na kaa def jullit ñi tamit mën na kaa def borom xam-xam yaa yooyu ramb nit ki jëlee ko safara dugal ko àjjana kon ramb am na ay façon kon loolu mooy ramb sayyidina suñu sang sang na waxoon nañ lan mooy sang mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dool dool ko musul loolu lañ jotoon andi si darsu tay bi li si jub si yàlla li si dëng suñ gàtt xam-xam si ak suñ nee gëstu in uridu illa al islaha mastataat fama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu